Euh, Pël maa lay nuyu gis nañ ci feebaru booy Malika bi bari na lu baree bari loo xamante ni dox nga ko ci wax nga ko ci en tant que jigéen mais mu amoon benn leeral boo xamante ne rek bëggoon nañ nga leeralal ñu ko bi nga demee ci ministre bi lan nga fa jëlee. maa ngi lay nuyu Jili di nuyu sëñ Bas sa caméraman euh, maa ngi ciy dox ba tey bàyyiwuma benn yoon te duma mës a bàyyi ci kàttanu yàlla amaana booy Malika mën naa la ne gëj nañ bokkee ci Adama Awa. mais li tax ma koy jàppale en tant que jigéen en tant que jullit ak moroomam te tey li ko dal man mënoon na ma dal yow mënoon na la dal ndaxte tey loolu dal ko du question da doon xeex wala da doon génn ñu tiire ko xam nga Sénégal àdduna sa laay wax daa am ñoo xam ne bu ñuy dox lu baax am na ñoo xam ne lu bon la ñuy dox xëj na ñooñu agressé ko doxul lu baax lu bon lañ doon dox te loolu mënoon na ci yem sax mu dee si jour boobu te jili bu deewoon ci jour boobu njaal bu ne di ko fa gis. yàlla moo yor bakkan léegi ñu dem ministre ministère seeti ji Matar Ba mooy bi muy recevoir affaire yi làmb ji noonu buur géwél mu ngi toog maa ngi toog Fatma Dia ngi toog Pa Maguette Sénégal mu ngi toog Père Gaston mu ngi toog lu amul seede neexul ba ñu waxee ba pare ma ne ko euh, dañ lay ñaan en tant que papa en tant que nijaay en tant que mag ñaanuñ la en tant que ministre dañ lay ñaan en tant que jullit ak moromam. dafa am suñu benn booy boo xamante ne man ko man sama doom la sama xarit la dafa am ndoog ndoog bu ko dal ci ko weeru koor bi la woon balu fetel lañ ko tiire te xam nga ku ne xam na ne balu fetel xajut ci nit te yow sa bët bu ci dara duggee sa fekk génn doo am jàmm ma ne ko nag léegi euh, dem na faju mais fan nee nañ kii nii amat ñoom daal munuñ munuñoo jël ay seen responsabilité dañ ko see dégager ndax munuñ ko opérer léegi foog booy bi génn wala ñu xoolal ko fu baax fu mu mun a fajoo ñu opérer ko ndax risque la. xam nga fu faan demee ba ne mun jël risque yooyu kon lu garaaw la. mu ne ma ndax dossier yi yor na ko ma ne ko waaw mu ne ma danga may indil dossier yi wallaahi azim dama waxantu yàlla moo ma tiim. moo ministre bi. mu ne ma naa ko indil kayit yi. ma yóbbu kayit jour boobu vendredi la woon. vendredi boobu noonu yaakaar naa ñun ñëpp ñu ngi fa woon après léegi ba ma ñibbee lënd bi lañ doon daral dalal Bira Sène mardi mercredi laa dem yóbbu dossier yi. bi ma ko yóbboo 10 heures si suba laa fa dem ba 16 heures et demi maa ngi fa toog directeur cabinet bi secrétaire bi sax moo ma doon wax xaaral xaaral affaire ba mujj gi mu ne ma kii la la booleel directeur cabinet bi. ma ñëw dugg directeur cabinet bi ne ma yaay seet ministre bi mu ne ko waaw mu ne ma lan la woon ma ne ko lan la woon kay xam nga ko xanaa ma leeral ma ne ko dañ fi ñëwoon la fois passée. ma expliquer ko ne ko dafa am suñu benn booy boo xam ne dañ ko tiire balu fetel mu ne ma naa ko indil dossier yi moo tax ma ñëw fi tey indil ko dossier yi mu ne ma noonoo moom amul droit tey dossier yi ma ne ko mais moom moom wax ma indi dossier yi ma ne ko man aw ma intérêt di ñëw fii di xam ne kenn laaju ma ko aw ma intérêt di dem di fëgg benn bureau aw ma dara nag waaye am naa sama ngor sama ngor man am naa ko te xam naa man maay kan yaa ngi dégg parce que boo neexul dara da moytu yu bëree bëri ndax man bugguma ko ma gàntu loolu moo tax yu bëri jiili du ci dugg bëgguma ko ma gàntu barki Seydina Mouhamed te su ma amee leen lu ma lay wax yow balaa ma la ko wax dinaa ko waaj waajaat ko que damay retour bi lay xalaat moo tax pour nit xam sama soxla du yomb dimbal tamit du force nag yaakaar dong lañ ci amoon du force de ndax yàlla moo yor bakkan yàlla moo yor doomu aadama te gémmiñ gu yàlla xotti rek boo saa xëyee dina am lum ci sànni même bu dee juróomi dërëm tàngal la mais yàlla daf ñoo sàkk pour ñuy dimbalante te yow mi su ma amee ci yow yaakaar am naa droit ñu ne la jiili kat dimbali ñu ci booy Malika xam nga lépp rek def diggante jullit ak moromam après euh, ma ne ko mu joxaat ma kayit yi ba ma ñibbee wallaahi azim yàlla moo ma tiim dama rusoon sax wax booy malika ne ko lii ak lii laa fa jëlee ndax rus naa ko wax loolu ak gàntu bi ma gàntu mais ba ma xamee xool ba xool ne lii kenn du ko nëbbu deux jours trois jours laa ko wax nag ne ko booy affaire yi de sottiwul dem naa waaye lii ak lii ak lii lañ ma wax ma ne ko nag euh, am naa la ma métti benn côté mais damay santaat yàlla xam ne lu baax rek laa si doon jublu dëggam lu baax laa ci jubloo damay ñaan yàlla suñu borom yàlla na ci yàlla def sutura yàlla def ci xéewal ba lii nii ñu jublu ci yow yàlla motal lépp ba nga toog di ko di ko kii nii nettali billaay ba ma ko doon wax sama rongañ dafa tuur te su ma koy wax ba tey sama xol dafay jeex parce que dafa métti billaahi wallaay dafa métti mais du lépp nga mën a wax. Massa Massa ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax encore une fois mbokk yi euh, xol tooy na. xolam fees na waaye yàlla baax na yàlla mi nga xamante ne mooy saafara yàlla na yàlla saafara booy Malika moomu nga xamante ni suñu suñu xarit la suñu doom la njabootu làmb la di leen jaajëfal ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.